kon bu ko defee weeru kor day weer woo xam ne sunu borom da ci ibbi ñetti bunt bokk na ci ak njëggal njëggal googu nag ku ne ci ñun soxla na ko ci dox muy yërmaade ñu soxla ko waaye bokk na ci li nga xam ne dañ koy soxla muy goreel gi muy goreel ci sawar bu ko defee loolu lépp di wane ne suñu agsee ci weeru koor wi nga xam ne yàlla dëgg la ñu ngi nii taxaw ñu ngi nii toog waaye boobu ba léegi suñu bët yi tegoogul ci jëmmam xamuñu nu mel dañoo am tawféex rek gëm ko moom nag moo ñu ko tawféexalee ndax bu dee am xel kepp nit ëppale nañu ko ba nopp ci nañ mën a waxee teewul amul tawféex ak gëm ne lu am da amam googu mu am nag te xelum doomu arab yeen say amnu ko te ba du gëm ne yalla amna lolu ko ndimbalal yalla lu wóor da ci dugg du tee nak mandarga yu baree nga fi yo day wane ne yàlla ko am la bokk na ci weer wi leray gi mu leer so xoolee seen làmp yi danañ am lu leen waaye wuñ ñu xëyee jant bi waaye ci guddi yi it danañ gis ay biddiw yi teqalikoo fu ne dafa leer waaye it ñu gis asamaan waaye nag ñuy gis mbindeef mu bàyyi ko ci mbindeef te xam nañ ne amul kenn ku ko liggéey ci biir mbindeef moomu ku dul yàlla ñuy gis it am meññet di bàyyi ko ci biir garab loolu lépp ñu wóor nañu kenn defe ko ku yàlla ñuy gis ne ñun ci suñu jëmi bopp danaa am ay mbir yu ciy feeñ yoo xam ne <coughs> danañu wóor ne loolu lépp kàttanam ak sañsañam ak man-manam moo ca feeñ moo tax ñu ñuy tàggat di ñu xamal yàlla ngir ñu bañ a ñàkk yàlla ci sunu xol ndax rabbukum wa rabbu abaikum al awalin moo leen moom moo moomal seen waajur yeneen fi jiitu woon yàlla nag sëriñ tubaab bi mu koy jàngale da ko jox ay melo yoo xam ne melo yooyu li tax ñu di la ko jàngal mooy ci moom rek nga koy fekk mooy dangay jàng ñu ne yàlla suñ borom xaadir la di nga jàng ñu ne la xaalim la di nga jàng ñu ne la xayi la aji dund la di nga jàng ñu ne la samiix la aji dégg la dégg goo xam ne amul fu mu yem lépp lay dégg di nga jàng ñu ne la yàlla sa basir la mooy mi ngi gis gis ga yàlla ca moom di nga jàng ñu ne la yàlla mutakallim la lépp lay waxal di wax ak jaww di wax ak suuf si di wax ak nit ki di wax ak melentaan bi di wax ak mbott mi di wax ak lépp di nga jàng ñu ne la yàlla borom xudra la nga jàngal ñu la borom iraada la mooy murid la melokaan yooyu yëpp nag soo dikkee ci nit doo fekk mu yor ci lenn lu mat lu mat sëkk buñ ne buñ ne buñ jiiñee nit ki ne doo am ko kàttan la dangay ngay gis ne kàttan gi ñu koy jiiñ daa am fu mu yem gis lu bëree bëri lu mu tële te yàlla buñ ne xadir la doo yëg lu mu tële da xool ba sonn waaye doo gis mukk loo xam ne yàlla ak lottam dana ca feeñ waaye nag foofu xelum doomu aadama mi nga xam ne moo sànku am lu koy di ko lëndëmal day dem ba mu jàpp ne yàlla su mënoon lépp kon war a mën mën a bind yàlla ju mel ne moom su mënoon lépp dana mën a bind yàlla ju mel ne moom loola njumte la bokkul ci kat bokkul ci bokkul ci euh, tële tële lu mënta nekk bokkul ci tële tële lu mënta nekk te yàlla ju mel ne moom loolu mënta nekk kon kàttanu yàlla buñ koy seet dañ koy xool ci li mën a nekk rek li mën a nekk luñ ci sële rek ak lott la waaye li mënut a nekk sële ko dog lott bu ko defee bu ñu bëggee mucc ñuy dund bëgg mucc fee ñu jëm nañu xam ne yàlla mooy borom rububiya nañu xam ne yàlla mooy borom uluhiya rububiya nag bu ñu ko waxee mooy ak moomeel fii loo fi gis rek yàllaay borom moo moom lépp lépp ci moom la jëm ba tey danga xam ne yàlla suñ boroom mooy borom mooy borom uluhiyya mooy li tax ñu naan allah loolu nag lim ñuy dimbalee mooy ñu xam ne ñun ay jaam lañ leen rek mooy suñu melo mooy al ubudiyya ak njaameel nangu ne ñun ay jaami yàlla lañ moo tax sëriñ Suhaybu muy jàngale dafa wax ne lu waaye baax baax as njaam rek as njaamam rek nga moo fi nekkoon ba fi kenn nekkagul mooy woy di nekk yi ba fi lépp jógee kon yàlla bu ñu ñàkk mukk ci sunu xol xoolee weer wi nañ ko ci gis di ko yëg màggaayam ak kàttanam ak sañ-sañam ak xereñam bu xoolee asamaan si nañ koy yëg bu ñu taxawee ci suuf si it nañu ko yëg waaye bu ñu xoolaatee suñu bopp yi mën nañ ko yëg jukki bi nga xam ne tey mën nañ koo indi te fas yéene koo tënk mooy nit ki li ko indi ci àddina yàlla ku bëgg nit ki di sant la waaye bëgg nit ki di amee teggin la waaye bëgg nit ki di yëg yërmaandeem ak xéewalam la sunu borom moo wax ne yow doomu aadama yàlla moo atte teg ci sa kaw loos loo war a wéyale te sañoo koo bañ ba keroog nga mooy bi ci njëkk mooy wuro jaamu ko dul yalla bi ci top moy sa ñaari wajur yi la indi ci adina ngay rafetal jëme ci ñom ndax kat man nga dem ba don mak ci seen wet wala kenn ci ñom fekke sax magel mune la nak lu ci mëna am mo xam ñom ñaar ñep fekk fekk bi nga doone mak wala kenn ci fekke bi nga doone mak waaye bul masa ñaawal yëkkati sa kàddu gu ñaaw du ko jëmee ci ñoom boo ko manee ba man ko ak soxol li ma doon wax rek rafiq yàlla ko bëgg ak ñëwante la bul gëdd sa waajuru góor bul gëdd sa waajuru jigéen waaye bu leen wax wax yu ñagas waajur nag des na ko laabiire laabiire ko laabiire ko woyof waaye nag bul àgg ci yëkkati sa loxo di ko jëmee ci ñoom suñ borom nee na wax leen wax ju tedd ju neex ju teey ju dal ju làmboo yërmande loolu nag bokk na ci liy musal nit nit li ñuy tuddee baay ak yaay ñoo ko fi indi dëgg la nag am na ku ñëw ci àddina koo xam ne baay indiwu ko fi yaay indiwu ko fi kàttanu yàlla rek ko fi indi muy kan suñ maam aadama am na ci koo xam ne yaay képp ko fi indi waaye baay indiwu ko fi muy kan Seydina Isa alayhi salaam am na koo xam ne baay képp ko fi indi waaye yaay indi wu muy kan muy xawaa lépp yàlla di ci wane kattanam ak sañ ñu ci bari nag yàlla mu ngi leen fi indi ci diggante yaay ak baay mu ngi wax ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyaahu wa bilwalidaini ixsaana yàlla moo atte atte nag day doon loo xam ne su ko xasee ba teg ci sa kaw sañu too koo bañ yàlla moo farataal ci sa kaw yow doomu aadama bi bi nga war a ngoor ko jaamu moom képp allah taabudu illa iyaahu jaamu googu nga xam ne moom moo ñu war suñu diggante ak moom moo waral tey ñuy taxaw taxawaay yii yàlla di di di la gërëm di la di la sagoo di la tudd foo xam ne nii sa jëm mus waa yegg ta dara sabu ko lu dul sujud bi ngay sujud dara sababu ko lu dul rukoo bii ngay rukoo dara sababu ko lu dul taxaw bi ngay taxaw ngir jëm muy lu mag fi mom lo xamne tutu tuutiwul mu ne nag bi ci dess moy nga rafetal jëm ci sa ñaari waju ndax yu ci ëpp nak bo ne ba amum xel am wala nga am alal wala nga am xam-xam kat bi de taxaw ci sa wet mu mel sa waju wi nak amna na loo wala nga taxaw tut mel ko sut sa yaay mu taxaw nga taxaw nga gis ne yaa ko yaa ñenn ñu xam lu baax ñëpp dañuy xaw a foofu torox lu tuuti waaye du tee ñenn ñi dañuy xaw a fàtte foofu tuuti am na ci nit koo xam ne musiba bi ko dal jullit bu ne war ngay góorgóorlu ba bum la dal te alali àddina dong ko yóbbee ki ci des xamati moo ko yóbbee ku njëkk dafa tabax këram jël waajuramu jigéen dugal ca biir dem ba yàgg mu wut soxna su su ko amal njariñ mu dugal ci biir kër gi soxna si itam yaa ngi ne ko man daal sa kër gi yaatu na lool neex na it bëgg naa fi nekk waaye sa sa waajur wi daal xajoo maa ngi kër gi waajur dem yàgg génnee waajuram ci biti ubbil ubbil ko bunt ne mi ngi jàkkaarloog mbedd mi ne bu génnee biir néegam rek ci mbedd mi lay jëm nekk fa ab diir xaw a añ bi di naaj reer bi di naaj ci wetam mu dem ci benn doom bu jigéen bu nekk fa sori mu ne fa ab doom bu jigéen boobu ne ko sama borom kër gi daal fan yëpp mi ngi jaamal nekk nga nekk ci kër gi am na lu ko naqari lool mu am keneen ku woo ne ko man kat maa ngi ñëw ndax daa foo nekk xaw naa jafe lool kooku ne de bis boo fi ñëwee sama say tas te it ginnaaw yow yaa a ñàkk foo nekk bay wër su ma génnee man fu ma jëm jigéen jooju dox dox dox dox ba dugg biir màkk dem ca tàllal yaay jooju tàllal laxoom yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax ko li ko doomam ji def li ci yéeme ba yéeme rek mooy bi mu génnaan génnee mag laataa muy agsi rek tàgge nañ ko doomam jooju ne ko faatu na kooku lay wax ne li ko dal fexeel buum la dal ki ci ak xamadi moo ko yóbbee si yaayam dafa tëdd tawat diir bu yàgg mu yor lu ko fajee lànk bañ ko faj ñu dem yàgg rakk yi xas ko ak magi mu daal ne coow li moom danaa ci mujj jël yaayam xool fajukaay bi gën a sori ci dëkkam boobu wala kër googu mu ne woon mu yóbbu ko fa bi mu ko fi yóbbee ba ko ci biti biti biti hôpital bi ba fa waajur yu nekk ab diir moom naka di génn na ba dem ba del ci dëkk ba ñëw di jooy benn xaritam ne ko tey daa mel ne sa sa xol neexut de mu ne tey kay moom sama xol neexut waaye xam naa lu yàlla def moo gën mu ne ko mbaa jaam mu ne ko sama waajur de faat na ba mu suul mu ne ko noo ko mën a suulee suul gaaw mu ne ko nu may def maa ngi moom ci àll rek aw ma nen nu ma def te xam naa mënu ma ko yéen a ko indi man denc ko benn yoon rek wut foofu ay nit ñu ma jàppale ba ñu def li yàlla ci moom am koo xam ne yàlla di dogal mu am mbokk mu tawat mu dem ba ci hôpital boobu di dox ci biir hôpital bi naka te waajuróom jigéen mi nga ci bitti maanaam waa hôpital bi may nañ ko mu dugg ci biir di dall ci garab yi fa lay fanaan fa lay yendal ba bis muy dox ci biir di dox ci biir di dox ci biir ba mu yàgg yam ci benn jëmm joo xam ne xàmmee ma xool ko doo diw mu ne ko foo ma mu ne ko dëkk sàngam mu ne ko waa a de mu ne ko looy def fii ko sama doom de moo ma yóbbu woon moo ma indi fii ne ma mi ngi dem lijjanti lu ma lu ma faj moom lay xaar ba ba léegi mu ne ko diw mu ne ko waaw diw mu ne ko moom ne mu ne ko loolu la wax mu ne ko loolu la ma wax tam amul xaar kooku daal di wut lal bu mu ko tëdd tëral tëral wut ku ko faj fay la ko fa la ko fa la ko fa bàyyi bi mu ko taxawoo moom waajoo taxaw ba yaayam wir ba dellu siwaat ci jàmmam ab diir bu yàgg nag mu jël waruwaay bu baax indi ko ci dëkk bi laq ko ci këram nag daal di woote ndaje mu yaatu yaatu yaatu xarit yeeg am ni jàmm yëpp ñëw mu lewetal fa ak jur jënd fa ay mbir ci diggante li ñuy xoolee bi ñu xel daal moo bari fa lool biñ dee ba ngoon jot mu ne na ñëpp ñëw ci base bi tànt bi mu ne ana diw mu ne ko maa ngi nii mu ne ko yow kat sama xarit bi damaa bëgg a jege si mu jege si mu ne dama diw diw mii damaa bëggoon tey ngeen euh, ndokkeel ko waaye tey dama bëggoon ngeen bokk moom naqar am mu ne ko damaa bëggoon nga jaaree ko ci sa kàddu ana sa waajur bu jigéen mu waxaat ci kàddu yi kawe ne làqu na ba ma suul ko daal di ay jooy mu laajaat ko mu waxaat ko mu laajaat ko mu waxaat ko waajur dugg ci biir génn muur waajur mu jigéen ba mu génn ñëpp di xool mu leen kii kan la ñu ne ko diw mu ne diw kii kan la daanaka xaw naa dee fi toog ndax kersa xamadi nag moo ko yóbbee li may wax nag du ay léeb lu am la am na comme dal koo xam ne ci ñaaw jikko ak ay àndandoo yu mu wërta àndal moo kon lu mel noonu kat mat daw suñu borom ne imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wax ju nooy ju rafet te bu gëdd bu saaga bu leen ŋàññ bu waaye dañoo sàkku ci yow al nooy ak orma ak màggal leen ak rafetal jëmee ci ñoom ndax suñu borom nee na wax fid lahuma janaha dhulli na nga leen yiir na leen yiir laafu yërmaande ginaar ni muy def ay laafam tàllal ko ay cujum dugg nee na noonu na ko yiiree eh, sa waajur góor ak wu jigéen lu tax mu wax loolu yoroo ay laaf waaye sa kàttan sa xam-xam sa man-man sag lewetaay la jubloo wax waaye ci noonu la ko mën a jàngalee ngir nga mën ko wéer waqul rabbi irhamhuma suñu borom moo ngi lay sax mi ngi lay jàngal li nga war a wax jëme ko ci ñoom nee del woo yàlla ne ko rabbi irhamhuma yàlla yàlla nga leen yërëm kama rabbayaani sagira comme kom nga ni ñu ma yërëme bi may doon daw dëgg la nag Isa ñu indi la ay ay tooñaange waaw sa waajur mën na laa tooñ tooñaange ju met mën na laa teg aw ako naqar waaye su boobaa li ma doon wax démb rek na la ci fekk ak rifq sago dal tey diib ba sa sago dellu nit ku am na koo mën a jubanti jëlee nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne amoon na benn waay bu rikki ci yaa rasulallah man axaqu naasi bi xusni bi xusni sahabati ana kan moo gën a yay gën a rafet ak àndaale ci man kan laa war a àndal ànd bu rafet mu ne ko sa ummuka ko ak kan mu ne ko ummuka sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko ummuka sa yaay mu ne ko ak kan nag mun ne ko sa baay nga xam ne moom la mujjee tudd ndax lan ñetti yoon tudd yaay ndax yi waajur wu jigéen wi yaa ngi def ci biiram juróom-ñeenti weer gën ngaa bari mu nàmpal la ñaari at wala ko gën a néew tuuti diggante bi daanaka soo ko seetee day daal di jàpp fanweeri weer ay tiis aki i naqar ak i yu mu dajeel ci diggante bi nga xam ne nii mi ngi lay yar mi ngi lay yar yor la ci yëkkati ci nga tawat mu di la toppatoo ak yu baree baree bari moo tax sunu borom xañu ko ab cëram mukk ci yow des am ko xamne xam dik yonent bi ne ko man axaqu nasi bi husnati sox bi xusni kan mo gëna yey ci man rafetuk andale mu ne ko ummuka um suma ummuka suma ummuka sa yaay top sa yaay top sa yaay ci ko di fiire daal ne ko summa abaka sa yaay sa bàyyi ci summa adnaaka fa adnaaka ko xol say jegeñaale ñu la jige na Top. maanaam boy boy boy ànd ànd win wu rafet daal la nga win wu rafet boo amee fekkee ànd bu rafet dafa am loo ci am am loo ci tële nee na moom balaa nga jël sédd kenn na nga ci sédd sa yaay ñetti yoon sédd ci sa baay benn yoon sédd ci sa ñi la gën a jege ba ba mag moo tax ñu baax ñu baree baree bari doxalin wii daanañ ko doxali am na ku baax koo xam ne mi ngi dëkkoon yaman yonent bi daana wax ne boori yaman gi xetuk suñu borom mi nga fi xeeñ xetuk yàlla loolu li mu jubloon mooy nit ku gëm sunu borom nekkoon na foofii koo xam ne fekk nañ ko mu toog di julli ñu xëpp ko daanaka lu toll ci téeméeri sooyu ndox te daggul julli ga dóor nañ ko téeméeri yar ci ab sujjóot te daggul sujjóot ba téeméeri yar kooku moo daan rootal yaayam daan ko baleel daan ko yanu daan ko fóotal daan ko leel di ko doxal ay yónneen te yonente bi neewoon na Seydina Abu Bakr ni Siddiq xaw ma boog Seydina Omar wala Seydina Ali ñoom ñett amna na ku ci genn waye waxon na len ne leen ku ci dem ba gis ko tek ku am tawféex gis ko na nga talal sa loxo jeme ko ci mom mu ñaanal ndax lu mu ñaan yalla def ko mu ne len jëm nga ñewon yo xamne lu mu wax yalla yalla fekk ko ci ngir ku rus yalla la señ tubaa nak ne na ngay def yalla rus la jafé na waye fexé bo and ak yalla rus nak mom dana tax yalla rus la mi nga tudun al kharani sayyidna moko gis jëm ju won la waaye melokaan yi daanaka lu mu am ci ngërëmal yàlla rek taxaw gii mu doon taxaw waajuram u jigéen moo ko ko may yonent bi waxaat feneen ne raxima an fuhu summa raxima an fuhu summa raxima an fuhu maanaam daa tëb tëb rek naan aka alku aka alku aka alku ñu ne ko waaw alku moom ku mu mu ne koo xam ne dund na ci kanamu ñaari waajuram wala mu fekkee ci te jot dugg aljana ci sabab man adraka walidayhi inda alkibari ahaduhuma aw kilayhima summa lam yadxulil jannata loolu kon alkane yonent bi alka ñetti ñetti alkane la tibbal waajooju mooy asma aw bintu abi bakrin siddiq doomi sayidna abu bakar siddiq ju jigéen la ku jàmbaare nee na sama yaay dama seet si woon màkk euh, madinatu munawara te booba fekk duggagul ci lislaam te ñun yéefee li ñu def metti na lool ma ne ma laaj yonent bi ne ko waaw sama yaay de na ma waaye ndax dama koy dalal ndax mën naa koo dal dalal ndax mën na ko jokk mu ne ko ah kay sëri ummak jokkal sa yaay rafetalal jëme ci moom kon loolu day wane ne ak lu mën doon àq ji dee ko sédd waaye nag foofu da nga fiy déggee ne yilif yilif yilif waruñ la dugal mukk ci lo xam ni da nakar yalla suñu borom ndax ak juñ am ci yow ji yalla am ci yow fe féedu ko kaw motax fofu yonent bi newon lepp luñ la jeme muy lu bax ci alakhirah jëm ci daw gaaw bu ndax taxaw lepp lo xamne baxul ci adina baxul ci alakhirah nak masla masla bu rafet ba genn ci waaye bu ko def mukk nak nan momako digal sama wajur momako digal dama koy def dedet sa wajur amna lum la sañ digal amna lum la sañ ci digal amna ci ñun nak nañ nan lum la digal ak lum mën don doon donte sawara la jeme songal waxuñ deug nak agul fofu mom ak ji nak lu kawel lu kawel lol way agul nak ci di di ñaaj nyak ñaaj suñu borom dede àggu amna am na ku ñu wax Bahz ibn Hakim jele na ci bayam bayam jele ci mamam mu ne mam man ma laajoon yonent bi ne ko man abaru kan lay jël lu bax di ko jëflanteeg moom yow yonent bi mu ne ko sa yaay sa yaay sa yaay daal ci teg ne ko sa baay nga xool suma suma aqrab fal aqrab nga xool ki gën a jege ki gën a jege euh, kon foofu ba tey day dëggal waxi ni wuute yëpp day dëggal ne yonent bi moo moo jël yaay jiital ko ñetti yoon kon nag sa alal ji nga am sedd ci sa yaay bu baax a baax a baax sa kàttan gi nga am sédd ci sa yaay bu baax a baax a baax dëgg la nag sa xarit bee la dàqal sa yaay xarit bi ngay dajal ci koñ bi wala ba nekk états wala bi nekk fii ci France wala Italie wala Ndakaaru moo la dàqal sa yaay balaa sa yaay xam ci dara ci mu xam ko ci yow nduru lu baax de waaye boo boo boo dundee ba nekk ci ay jafe-jafe rek ngay xam ne naka di naka di da ngaa juum du woon moo tax suñ tubaane wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima na nga rafetal def lu baax ci sa ñaari waajur tey it bu ñu la digalee nga gaaw jëm ca rafetal la la digal la ñu la digal nee na nga gaaw rafetal ko yonent bi nee na inna abarril birr silatul waladi ahla wuddi abihi bokk na ci mbaax yi gën a mbaax mooy nit ki di jokk ay xamee waajuram di rafetal di jëme ci ñoom kon bu ko defee bokk na ci jikko yi nga xam ne ci weeru koor buñ ci accès it ndax wax nañ ne li ngay defal sa waajuru jigéen wala wu góor ci weeru koor yàlla da koy ful ay junni junni da koy def ci ay yiw ak dëgg la nag waajur yëpp yemuñ et ça da nga gis koo xam ne ni day am lu ko naqare ci waajuram bi ndax waajur woo xam ne day sàggan nag di def ay jëf yoo xam ne nii neexul yàlla neexul yonent bi neexul fi ku baax ki mu nekk moo bu doon fi ñu ne neexul sëñ Tuubaa da nga gis koo xam ne noonu la waajuram di mel mu naqari ko axa kay su boobaa am na natt waaye nag lépp lu ko mu digal ci lu baax baax na lu ko digal ci ab safaan na bañ tey lu man ci rafetal jëme ci moom mu di ko def di ko ñaanal yàlla suñu borom noonu mooy mi gën am na koo xam nit ku baaxoon la waaye waajuram jigéen dafa dëngoon mu na di xabtal ay gëno jigéen yu bari ci moom ba mu jigi la wut ku góor ak ku jigéen ñu njaaloo waajuru jigéen ne wax wax ne doomam ci nga xam ne mooy baax baaxam fi ñu ko fekk muy julli moo jur doom njaaloo ji fekk da ko tuumaal ngir bëggoon tuuma bi jeexital ci xolam ba mu bàyyi julli yi ak wéetaay bi ak yu baax yi muy def kooku it di yàlla dimbali ndax am na ko naqari lool ndax waajuramu jigéen moo ko tuumaal yàlla dogal mu ñaan suñu borom ne ko liir bii ñu ma tuumaal ne maay bàyyam maa ngi lay ñaan nga dimbali ma mu tontu wax moom moom rek moom moo ma ci mën a génne fi ma toll bi dee ba waxtu waxtu waxtu jot mu wax wax waajoom jigéen ne ko kan kan moo jur gone mu ne ko xanaa yow yow loolu sañ nga ko laaj barab sàngam koy nga koy laaj ndax bara sàngam yàgg diw fa ngeen doon daje mu woo ko jigéen ko laaj ko ku jigéen ko wax ko loolu mu ne léegi yow sama yaay nee nga maay bàyyam ku jigéen ki nee na man maay bàyyi gone bi léegi nañ laaj liir bi mu ne ko li may wax dëgg noonu ab liir daa mën a wax mu ne ah kay woolu waa dëkk bépp bi ñu woowee waa dëkk bépp ñu toog ñépp jege si lool nag di déglu kooku jarix la tudd mu ne ko yow gone gi kan mooy sa baay mu ne ko sàmm bi daan sàmm diggante sàngam ak sàngam mooy sama baay gone gi baamu ko ba muy ñett yoon weddi moom tëlu maam jombi balaa ñoo weddi dañoo jombi ba noppi doo ko weddi waaye tëluñ sax weddi kooku looloo ko ci musal keroog kon nag foofu dalay xamal ne dëgg la dees na sàmmanteeg ak yu bari waaye nag yàlla suñu borom àqam daa gën a kawe lépp kon bu ko defee bu fekkee sa waajur mi ngi dund nga góorgóorlu lu baax te xam ne boo ko ñàkkee da nga am lu la naqari téeméer yi ngay am boo ko séedoo moom du la wàññi dara ñaar téeméer yi ngay am boo ko séedoo séedoo moom du la dara dala yokk rek bu fi jógee nag nekkatu fi ngay ñaan yàlla suñu borom mu jéggal ko te yërëm ko te xam ne foofa kat ñaan gi nga ñaan dana ko amal njariñ lool waaye na la wóor bu ñaan gi àggee ci ak ruuxam dana la fekk siwaat ci sa ruu yow fii ci àddina ndax ni ko fàttalikoo ne la lay fàttalikoo ruuy yi dem alaxira ak suñ jëmm yi wax rek lañu ñu mën seq waaye yu bëree bëri ñu ngi koy xam lu ci bëri sax dañ koy xam ndax al juróom junoon mu jannada ruuy ñu ngi ci barab fu ñuy wax aalamul arwaax ñu ngi xam di xam yu bëree bëree bëri kon ñaan gi loo am solo la ci ñoom luy jeexital la ci ñoom lu leen di dimbali la kon bu ko defee loolu nag bind la ci mbooleem képp koo xam ne rek bëgg nga lu baax te bëgg nga mucc nga di ko góorgóorlu di ko sàmmante xol bi nag yenn saa day day bañ maanaam yenn saa nga bëgg rafetal jëm ci say waajur wala mu am lu muy wax ak yow sa xol bi dala la bañ loo daal waaw nga gëm ne sa waajur yi daa ba kanam lu ko neex la la bëgg def loo waaye suba boobaa bësanteel jihaad bu rëy la maanaam bësanteel ak sa xol nga xam ne yow lii nii ni di lii di wax ak yow nii di di di bësanteel ak sa waajur yi nga xam ne bu sottee du baax ci yow nga xam ne su ëllëgee soo faatoo la nga fa nar a dajal ëllëg nga rafetal jëme ci moom da koo gën su ngeen demee ba toog loo koy laabire ci ci mbir mi nga doog koo laabire ñu bari na dañuy di laaj ba xam boo denkee soxna sa waajur jigéen ne la wala sa waajur góor fasel soxna si lan la ci sariya kon laaj boobu laaj laaj nañ ko fa ay yoon waaye laajaan daal leen ko fekk suba daal leen ko fekk suba daal leen ko fekk suba daal leen